waa gis nga. ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu waa quartier bi yëpp ah, tey nag tey nag ñun dañoo nekkoon fii euh, mu ñu tuddee ko journée de nettoyage général. bu nga xam ne daanaka quatre secteurs yëpp génn nañ ñu tase si rond point bi pour nettoyer bon journée bii euh, du journée politique mais journée d'investissement humain la ak social ah yu nga xam ne koñ bi ñoom ko initier te yaakaaruñu si kenn ku nga xamné ne mën nañu ci jàppale alors euh, ñi nga xamné nak taxawé nañu journée bi bari na comme lu ci melni Baye Modou ni nga xam ne Baye Modou Ka moom moo ñu jox li nga xam ne mooy matériel yi ñu defaree fii euh, affaire bi nag li lay wan ne du politique mooy gis nga si ay sportif yu fi nekk parce que coach mu ngi nii taxaw suñu wet muy Déthié Déthié Mbengue waaye itam ñu ngi nii ak euh, fondation waa kër euh, Akon ah euh, ñu ngi fii ak suñu grand Diagne boo yëpp jàpp si pour ñu defar koñ bi loolu moom moo ñu yëkkati woon tey ñu siy jaajëfal ñëpp ñu nga xam ne jàpp nañ si di gërëm aussi waa zone 7 yi nga xam ne ñoom ñoo ñu si encadré di féliciter aussi waa koñ bi yëpp ci engagement bi ñu def parce que ku nekk am na loo génn si sa poche pour dooleel ñu si li nga xam ne mooy bés bi alors ñun sant nañ nag jeunes yëpp. ah bàyyi ñu kenn ñep génn nañu te ñu ngi fi depuis onze heures te inshallah dinañ ko terminer en beauté lolu dal lañu amone ci li nga xam mom lañ doon wax ñu nuyu ñep ziar ñep tout le monde donc euh, nous sommes là en tant que jeunes pour représenter donc notre quartier euh, à travers euh, une journée de nettoyage général initiée par les jeunes de Bambilor plus précisément à Kaw Kourissouf. Nous remercions tous les jeunes qui sont ici, donc euh, en commençant par euh, le coach euh, Deche qui est là, qui nous a accompagnés, mais aussi donc euh, notre grand Baïmoudouka qui est là, qui nous a fourni des matériaux qui nous ont permis donc de pouvoir faire euh, cette journée en, beauté. Il y a aussi euh, la fondation de Econ euh, représentée par Mr. Djang qui est là et qui nous accompagne. Nous remercions aussi toute la population Bambilor qui nous a accompagnés financièrement pour la réussite de cette journée et nous remercions aussi la télévision Zone 7 TV qui est là et qui nous accompagne pour la réussite de cette journée. notre objectif unique c'est de rendre notre quartier propre et nous n'attendons pas le président Bassirou Diomaye Faye, nous n'attendons pas aussi euh, son premier ministre Ousmane Sonko et nous n'attendons pas aussi le maire euh, En tout cas, ça c'est une journée qui, n'est pas politique, qui est sociale, qui est environnementale et qui est culturelle. Et nous comptons le continuer comme ça, euh, sans entrave, Inch'Allah. Et là, on va réussir pour euh, rendre notre quartier propre et plus attrayant. Nous remercions tout le monde. Merci beaucoup.